jërë ngeen jëf ci ànd bi ak FTN Media, président Basiru Diomaye Diakhar Faye mi ngi defante dëgg nag ak député yi Benno Bokk Yaakaar yi gàntal projet de loi ba mu fa yóbbu woon ngir ñu tas conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales gannaaw ba ñu ko gàntalee ñoom député yi président xam ngeen ni génne woon na bataaxal ne il prend acte maanaam la ñu def gis na ko la ñu waxit dégg na ko léegi léegi la njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di jëlëb décret dàq Aminata Mbengue Ndiaye présidente au conseil des collectivités territoriales ak Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social et environnemental ci communiqué bu ko ci présidence de la république ministre secrétaire général bu présidence de la république dal di koy khatim Oumar Samba Ba ci la ñu yëgle booba lépp xibaar njiitu kon Nyar di jël décret ñaar institution yoyé mu bëggon assemblée nationale dal di koy motion de censure bañu premier ministre Nena, du fi amé ndax ba ko def bu ñu fukki fan ak ñaar euh, septembre ndax nee na bu ñu yeggee fukki fan ñaar weeru septembre bi ña ca assemblée nationale dinañ tal leneen lu dul def ay motion de censure mu mel ni kon xeexu politique bi mi ngi doog door merci de votre fidélité à FTN Media. le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar vient de réagir à la décision des députés de Benno Bokoyakar de ne pas voter le projet de loi portant suppression du Conseil économique social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales en effet dans un communiqué le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar indique par décret en date du 4 septembre 2024 il a mis fin aux fonctions de Madame Aminata Mbengue président du Haut Conseil des collectivités collectivités et M. Abdoulaye Daoud Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Ainsi donc, le président Bassirou Diomaye Diakhar mène le combat politique contre Benno Bokuyakar et son premier ministre Ousmane Sonko a aussi affirmé quelques heures auparavant qu'il n'y aura pas de motion de censure car à la date du 12 septembre, ceux qui sont à l'Assemblée nationale auront d'autres préoccupations que d'introduire une motion de censure contre l'actuel gouvernement.